kër fay local la ñu ñoo moom. di ci soñ ñu Sénégal yëpp ñu consomé ko. kii nañ laa am koo joteel géej waay baalu ah presse bi. déglu ma Babacar. booy ci presse bi daa am koo ci joteel. non booy abu saytaan la rek. du question jot non non déedéet abu sa nga jote dafa taxaw. abu moom sama rëq la moom. waaw non dafa taxaw ne Lac de Guiers ko tëggal combat Lac de Guiers sama rak nañ ko tëggal combat di waxtaan ak bu ñoom bàyyi comprendre nga pour ñu tëggal ko combat di ci waxtaan ak bu di woo promoteur yëpp ñu jox ñaari avance ba ñetti avance comprendre nga abu taxaw naan ma yeex nga ko def affaire dafa ma métti dafa ma touché. waaw dafa ma yéex a wax. non a a Lac de Guiers ma rakk la Lac de Guiers yëpp dañ leen a yàgg a xam. voilà boo toogee wax ja taar kay abut na la da yéex a daa aay. booy boobu saytaan la ab waxu la lu aay. waaw Babacar waxuma loolu. Ah. Lac de ma man ndaay daa mel ni subu ci seen mbojj de. Ah, sama yoon nekku ci combat bi waaw wuy ma dafa naan dama lay combat wo sama yoon nekku ci waaye dama lay xamal benn affaire waaw ma damay wax Babacar dafa am benn affaire bu am ci Mama Lamine dafa génn def benn sortie sama yaram daw. Mama ma koy seetaan damaa jooy. billaahi jooy sama yaram dafa daw ndax nit ki amoon lu dul sa waajur nit ki amoon lu dul sa waajur seexam nekk ci biir kaso mu am waajuram mu làqu mu wuuf ko ba mu làqu ma dégg Zarko mu di wax wax bu ñaaw wax ba xam rafetlu moo ko loolu waru ko ndax ñoom ñëpp ñoo bokk ndey baay ndax àdduna amul solo loo fi gis dafay. Zarko Mama Lamine war na toll diggante Zarko jàppale ko Zarko war na toll diggante Mama Lamine ñëw jàppale ko. ah Zarko li mu waxee dafa juum loolu du wax naan yoonam nekk si loolu dafa maa métti naan góor yaay jàppale sa bopp Maama Lamine gaynde la jàmbaar la am na fi tàkkusaan bu ne dañu na fekk mbër bu ne métti na ma trop rafetlu wu ma ko Zarko waaw li mu wax foofu rafetlu wu ma ko Maama Lamine nañ ko jàppale te yàlla tax xale bu yaroon la champion la am avenir bàyyi làmb ndax lii waruñu ko seetaan nañ ko jàppale te yàlla tax ndax li ko dal dafa métti lool li ko dal dafa métti yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla suturaal ba mu dellusiwaat ay activité am. yow boo amee masal liiru boo amee. masa non non Zarko ni mu waxee dafa ma metti dafa ma touché man. barke Serigne Saliou Mbacké eh, xalaatam la wax rek. Ah, dafa sa xalaat ak sa tolluwaay yaakaar dafa seetaan lu ah. dafa seetaan lu vidéo Mame Lamine bi sax moo tax ma waxee loolu dama yaakaar dafa seetaan lu vidéo Mame Lamine. koo xam nga ne borom baax la xëy na loolu ku baax la ku ne xam na ne borom baax la. dafa juum ni mu waxee dafa juum leer na ma dafa seetaan vidéo moo tax ma waxee noonu dafa juum dafa juum man loolu rek laa ko gisee dafa juuma ndax Maama Lamine vraiment gaynde la te bañkat la tàkkusaan bu ne am na ko tàkkusaan bu ne am na ko am na noo xam ko sar koo waxee dama yaakaar dafa seetaan lu vidéo bi wala dafa gisul moo tax mu laaj ko ma waxee noonu man daal waxam bi rafetluwuma ko dara dara dara Maama Lamine nan ko jàppale te yàlla tax di ñaanal ñëpp jàmm. waa na gaynde gi gaynde gi mi ngi France mi ngi liggéey te léegi mu ñëw incha allah rabbi ñaanal leen ko jàmm rek mi ngi waajal waxkat yi wax yëpp at ratatata den tëj seen làmmiñ waaw ñan ñooy wax foofu. ñuy wax rek ñuy tëralal di wax rek. ñuy wax ñuy rattati di wax rek. dëkk Bawol moom am nañ droit wax ndax waa Bawol tafaatiri seen bët. wala la tee wax sa am nañ plein droit ku nekk fa nga. bu dee yow même yow Bawol nga dëkk. man su ma dëkkee Bawol géejewaay laa far géejewaay laa am géejewaay laay tiitaroo ok su ma dëkkee Bawol géejewaay laa am. xam nga ne waa Ndangal yow ñii ànd ak euh, tafaatin xanaa tay la ñii taxaw naan tafaatin tafaatin tafaatin ñii ku mun ta wax ci tafaatin rek. tay tafaatin amul droit ay nit farak. waaw loolu laa wax weddiwuma ko dama ne la ku mun ta wax ci tafaatin te xanaa tay la ñoom su ñu bëggee tafaatin tay la ñi ko dar looloo koy rey ba mu dee reyee. tafaatin ñi ko dar yàgg ñu koy rey li ko li koy rey si ñu ko dar ñooñu la jëm lay lay jaar. da ah, jéem a da ngay jéem a jaxase rek dama li ma la xam naa ko oh arrête nga ma de man xam na li ma la am na fu nu jaaroon teg moom bisimilah yàlla na yaakaar la woon woon ni wut oh arrête wuyu ma yàlla nanu yàlla defal jàmm wuyu ma tafaatin nga foog la woon oh, woon ni guy gi combat bi mu jëm yàlla ko yàlla may ndam saa kees combat bi mu jëm yàlla ko yàlla may ndam ngeen yëpp bari na de sa lu lu sombi mën nañ koo naan. Ah, lu nu sombi bii ngeen yaakaar di ngeen am suukar. xalal ta daa nekk ci yoon. Ada Fass guy gi Ada gis. combat Zarko Eumeu Sène Sa Thiès Eumeu Sène. Sa Thiès Eumeu Sène. di nga gis ak takk tamit. Alioune Seye hee Alioune Seye moom la wax barki dem leer. waaw baax na ba boobu moom nee na daa miin géej way. miinu benn géej way day way nu mu miinee géej way kan daan géej way. Alioune Seye Junior la fa daan. waaw ah waaw ak kan. waaw Alioune daan. waaw nga ne. Moussa Fall nijaayam la mbokkam Moussa du nijaayam ah, xam naa kii nijaay euh, kii mooy nijaay dafa ndànk dafa ndànk. Sa Thiès la. non non non non Moussa Fall du nijaayam xaritu nijaayam la. Moussa Fall daal nitam la ah, waaw xaritu nijaayam la. day dugg géej fi moom dootu fi dugg moom nag. ba combat bi jàll rek. ba combat bi jàll rek. ba combat bi jàll rek. waa Bargny ngay waxal ma ne li waaye xam naa leen boo Bargny xam naa leen bu baax a baax. lu leer de. Oh, ma li ma la wax déggul wax dañu fa am combat at moom waaw kii tamit sama doom Jackson tamit am na combat. non xa de defal ndànk bala bul tëb bul tëb paa yi noo xaaral noo defal ndànk defal ndànk defal ndànk léeroo. yàlla may ko ndam ñaabu ndaw am na combat. ki jéem a jaxase géejaw yow defal ndànk rek defal ndànk rek yow ne yow yow yow yow da ngaa may problème xam nga maa ngi doon wax yeb yi mais damaa fàtte ne ka Jackson ne ka Jackson daa yeb avance su Lagros. non ñoom ñaar ñëpp géej waay lañ dëkk. yaa ngi dégg oh, waay Jackson yow xoolal wax nga la dëkk. waaw Lagros su dëkkee géej la. te ñoom ñëpp mbëri géej waay la ñuy bëreel. Pam Ndoy géej la ñuy yeewoo. waaye attiré wul géej waay. Grand Dakar lañ dëkk Fass lañ nekk. ban ma fu ñuy entraîné waaye l'essentiel ah am nañ bis am nañ bis de. Jackson it moog ba daa daaw dafa am nañ bis. Jackson birima bi ci benn baat ay birima bi ci benn baat kenn du moom su ma xëyee ren balaa waxtu muy déwén. sama Lac Rose mi ñëwaat. caatu daaw dafa àll. Lac Rose géejewaay la mujjee de. ma ne waa géejewaay la mujjee. te gis ngeen keroog lam leen def ak na muy yeewoo géejewaay boole ci. waaw waa baax na. keroog yéen ñëpp soxlu ngeen mais. waaw sant yàlla rek yàlla baax na. Lac Rose daa ma ne. te soriwul la de. waaw may la yàlla na yàlla yóbboo ak jàmm Jackson Jackson mii ma gis. te Lagros Goro Assane Fall la. ma ne Jackson mii ma ah, gis leeru baax na Lagros Goro yàlla nañ ci yàlla yóbboo ak jàmm. Goro Assane Fall la birima bi ci benn baat. Ah? birima bi <laughs> waa baax na ah, kii nu mu tudd. Pape Ndoye Goro Assane Fall. Pape Ndoye <laughs> am na yab na xam nga daf maa yab. yab na est-ce que wuruñu la ndomba ba pare. ma ne ya mënuñu maa wër di gorom lekk Assane Fall ba pare nag géej way. ma ne yàlla nañ ci yàlla jam jàmm ñu dara non non non non bokkuñu daal waaye ma xamal la benn affaire yàlla na ni yàlla defal jàmm suñu combat yi jëm xale yi am combat biir géej yàlla na ni yàlla may ndam. papa booy jinne moom it am na combat ko yàlla may ko ndam combat bi gépp ñu jàppale ko papa dooleel ko Youssou Ndour am na combat ko ñaanal combat bi eh, kooku gémér bi la am waaye gémér Youssou gémér la Youssou di wëyu boo xam du wax day noppi boo bi dana ko ci fi nga jaalee ku am fit du fi jaal loolu ko wax keroog sama kanam borom fit ci kaw lay ne baax na ba boobu yàlla nañ ci yàlla la bu Youssou kan Franc tiitaloo ko lu ma koy tiital xale la Bombardier mi daan no non non ko dara ndax xamul tax Franc déglu ma non non xamul tax tiital xale la moo bëgg dara ñoom dañoo war a sant Bombardier gërëm ko sant ko ndax Bombardier su demee ba wàcce boppam di leen may sens dañ ko war a gërëm sant ko Bombardier su ko neexoon ne du bëre franc comprendre nga su ne tiitalu ko dara xale la non non non du question ay franc non franc damaa bëgg jox ko avance la de guerre man de lii rek mu jël avance a de guerre fi mu ne ma loolu laay liggéey damaa bëgg mu jël avance a soog Mansour ba gis naa ko léegi am na lu ma ko wax ci la de ma góor a soog dama ko doon wax combat am at kii nu mu tudd Mamballa Mame Balla Mame Balla borom top 5. ñoom moom laa ko doon wax combat bi léegi. di ko wax pour ñu tëgg ko. non booy bu yarul la booy bu joxe cër la vraiment góor a. booy bu yarul la mais yaru moom à lañ ne. ma ne ku yaru dégg booy bi général bu Malika dafa yaru war na am combat booy boobu. ah. ah yow ah, fàtte naa si Pambaay di sama doom sama rak sama xarit combat bi mu jëm moog daam yàlla may ko ndam sedd guy asi Pambaay ko ñaanal yàlla may ko ragal pire day xañee wërsëg ñoom ñoo la gën a xam man géej waaye dëkk ragal lu li may wax da nii biir parcelle fii li ma wax li may wax nëbbu ma ko ragal lu ma ko waaw dama la xam ne da ngay da ngay kii rek damay lan waaw yaay lu ma naan nag ñàkk naan yow di nga far léegi ci ñoom nga far waaw loolu nga yaakaar di leen ñaanal Modou li mu def rafet na trop geste bu yàlla na ko yàlla defal jàmm fii ku fi def lu baax ñu wax ko du nuyu waa diaspora bi ñëpp bàyyi ma kenn di baalu ñëpp ak voilà. ak goo ñaare. non non wuy ma di nuyu suma rakk rakk ji Youssou Ndoye. Sénégal ci gën a gaaw jëfandikoo. transfert local la ñun ñoo moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommé ko.